Mamadou Ndiaye euh, président du mouvement Fraternité entre aides au niveau de la commune de saint Notaire responsable politique au niveau de la commune de Sam Euh, Fraternité entre aides nous ngi nekk mouvement bi nga xam ne 2018 Nous travaillons comme nous en tant que jeune nous nga xam ne ñoo dëkk ci commune bi euh, ànd ci liggéey xool nan la ñu mën a gox bi parce que tey gox beaucoup ko bëggee taxaw bëgg ko am noo fa mel ci ñoom euh, da ngay bokk ci branche yi décidé ci gox bi ci la ñu indi ne pourquoi pas que ñu dugg ci seen politique bi xool nan la ñuy jéem a xool ci au niveau gouvernance locale nan lañ ciy contribuer le président Ablaye Wade ñi euh, ko xeexal ba mu toog fi ci la ñu bokkoon bien vrai que nos parents étaient du parti socialiste

comme il a été victime de beaucoup d'injustices on n'a pas trouvé ça normal et que ñu dañuy def dekki ngor ñu combat aussi ci diaspora aussi les nañ fa lu parce qu'on a été en Chine euh, d'entreprendre euh, des conviction aussi euh, on a été en Europe aussi dans pas mal de pays pour ça on a été aux États-Unis aussi pour ça que ñu bari adhéré wu ci projet boobu mais néanmoins, avec Maki, on a beaucoup travaillé dans l'ombre en 2012. Voilà, de venir accéder. Hernek, mon premier mandat. Je pense qu'en 2019, le Nigeria à travers du mouvement Fraternité entre elles. Nous avons accompagné pour moi mon deuxième mandat. Gage actuellement, euh, bon, l'idée de départ, c'était vraiment de nous voir sur nos biens. Nous avons fait notre propre liste. Euh, demoon ci élection yi maintenant bi ñu demee ci revenir ci sa question bi ñu demee ci législative ki locale yi ba génn ci euh, y a eu des gens qui étaient dans d'autres communes communaux nga xam na xëy na dañu bokkoon ci bennoo euh, d'accord ñu woon ci investissement yi loon seen bopp y a d'autres jeunes yi nga xam ne aussi ils ont y a travaillé avec bennoo qui étaient frustrés par rapport à la démarche qui se sont démarqués et que ba bëggoon na sax jëloon yenn décision yoo xam ne euh, ça n'allait pas ranger le président euh, bi ñu ñëwee seet si ñu ñu waxtaan l'idée est sortie que on est jeune euh, ñun ñëpp dañu ancré aussi au niveau du département et que on pense pas que qui que soit puisse connaît mieux que nous la surface que ñu ne il faut qu'on essaye de créer une nouvelle force pour que ñu mun apporter commune bi département bi même euh, du cent que c'est pas de dire que li fi nek baxul wala que on est plus fort que wala ñu leen gëna a xam surface bi mais japp nañ né am nañ taxaway bu ñi am dañu gën am impact ci étant aussi des jeunes japp ne war nañ mëna a waxante jeunesse bi ci lañuy indi idéo ñu xol comme ces cinq quatre départements qui se sont réunis on n'a pas encore eu quelqu'un qui est de Gounass peut-être pour mëna waxtaan ak moom kon nag ñu ne kon nañ une grande alliance euh, pour un Guédiawaye émergent comme que ñun ñëpp dans l'idéologie et nos convictions personnelles que euh, c'est que doit se développer moo doxul euh, peut-être c'est trop dire parce que quand tu n'es pas dans l'hémicycle pour nga mën di wax yenn dafay xaw a doy moi j'aime pas trop critiquer mais ma conviction personnelle moi, que tant que la gouvernance locale n'est pas à la hauteur le pays ne va jamais aller en avant parce que dëkk ay base moo koy doxal te dañuy jàpp ne te dañuy sellu ne euh, mbiru localité nit ñi dañ koy dañ koy caaxaan malheureusement pour notre commune Sam Notaire boo xoolee yi ci bëri euh, on a même eu à l'occasion d'avoir des maires analphabètes mm-hmm. bi nga xam ne tey euh, moo yor sunu lépp fekkee amul capacité de pouvoir développer mm-hmm. fii nekk première commune euh, de Guédiawaye 67 ba on n'a pas eu de grand changement avec que euh, développement de Rwanda et que génie euh, quand tu vas à l'université les plus grands diplômés de l'université viennent d'ici Soit des l'imam aussi les plus grands élèves de l'imam Laye viennent d'ici mais à la fin vous nous paraissez étudier, ils n'arrivent pas à s'en sortir donc l'initial aussi nous mooy quand tu connais pas la surface aussi pour nga mën a def gouvernance locale bi war dafay xaw et on n'a pas eu la chance aussi di am maire yi xam surface donc quand tu ne connais pas la surface quand tu n'as pas la capacité ben bi aussi euh, un maire doit être réseauté que dañuy seetlu ne le maire yi seen xam-xam yi sax yeggul on a c'est seen xamel mais suñu amee taxawaay bi war daal war nañ mën a apporter sur le comité que euh, même élection est passé et même le mouvement n'a pas changé de physique de ñu euh, ngi côté social bi essayer d'aider nos femmes à émerger et que d'aider les jeunes aussi à s'ancrer parce que nous ben, sommes surtout nous en banlieue euh, on a élu tous les présidents du Sénégal mais on n'a jamais su les accompagner parce que jeune jeunes intègre ingénieur intelligent ak ay jeunes yi nga savoir foo ko voilà euh, sax yu su rek ñun lañ alors que euh, on n'a rien à avoir dedans ñun combat en politique loolu rek la euh, que demuñu di xeex pour xeex dañuy pour émerger dañuy pour ci dëkk bi ni muy pour. que suñu femmes yi suñu maman yi ak suñu sœurs yi nga xam ne ñu ngi yeewoo fii que ñu gis seen bopp ci dëkk bon comme lu ñuy wax rek ah lu génn ci xol dugg ci xol yi euh, biñ fi nekkee ba léegi je pense que benn relation de sincérité la ñu seq ñu fiy yeewoo voilà suñu gisoon ñuy dox tànk ci di leen nax wala ñuy dox tànk di wuti loo xam ne bu ñu amee dañuy dem bàyyi leen je pense pas que ñu leen di woo ñu fi jël boo gisee joxuñu kenn paas bu ñëw neexaluñ kenn ay mbubb pour mu ñëw parce que ça fait partie des principes yi nga xam ne ñun dañ koy dañ koy prôné euh, chaque fois bu ñuy def bu ñu gisee sax engagement bi jeunesse bi am dañuy yaakaar dafa am lu ñu leen dikk wala dafa am lu leen may alors que ils viennent entier donc loolu relation de sincérité moo koy indi euh, discours bi ñu tënn rek ñoom peut-être ak attitude yi ñu am ak ñoom xëy na moo indi engagement boobu am c'est on de faire de mieux pour ne pas les décevoir aussi. Nekul ñu nga xam ne dañ leen woo kaa leen jàpp ci c'est avant-hier qu'on a annoncé ça et que mu mel je pense que si on avait tey jaaram ci canal yu mel ni yéen annoncé ko di ngeen duñu xaj ci ci salle bi et que soo xoolee même c'est des femmes leaders ñi nga xam ne ñoo dëkk seen i gox ñoom ñoo ñëwuñu ak ay mbooloo wala ñu demee noonu. def di wax nag dañ ko baaxawul mais je pense que bu ngeen duggoon rek ngeen def enquête tuuti ci commune bi dans les loisirs de parce qu'au niveau éducation euh, à chaque fois que euh, école yi on essaie quand même de donner des matériels scolaires à toutes les centres d'école yi commune à chaque examen aussi on essaie de donner les enfants tout ce qui est matériel géométrique euh, côté aussi dons on a eu à faire beaucoup de dons c'est pas des choses qu'on aime dire parce qu'on le fait naturellement et on le fait pour nous-mêmes parce que fii lañ que fii lañu on a fait énormément de social mais pas le cheval de bataille en fait euh, notre cheval de bataille c'est les convictions les principes nañ nit ñi comprendre euh, c'est des idéologies yi nga nañ population comprendre ko bu baax prochaine activité il y a la comité qui est en train de se réunir sous euh, suma multi ci côté santé bi on va faire des consultations euh, euh, gratuite euh, de dons de médicaments comme une ko de comme d'habitude à la prochaine ouverture des écoles à na lu et que toujours aussi tu fais et bu on réunit les moyens qu'on a et qu'on essaie de faire des dons importants par rapport au fait qu'il nga a am ci donc le mouvement il est il est social dañ maintenant côté politique mais socialement, on y sera toujours on voter c'est d'abord un devoir de tout citoyen citoyens. Le de ne comment voter pour qui et voter pourquoi je pense que c'est ça la la réponse que vous me apporter donc euh, peut-être exception bi euh, l'État essaie de faire tout son effort pour que ñuy bañ a sentir tey précarité bi nga xam ne moo ci dans le dans le monde bu ngeen xoolee suñu voisin am nañu commencé di def ay état d'urgence alimentaire te macha allah ñun yeggaguñu foofu euh, comme le président il a deux ans euh, à accomplir sa mission nañ ko accompagner ci loolu l'accompagner nag mooy ñu jox ko majorité bu confortable pour mu mën a def euh, bon ñu ngi koy def ay cheval de bataille di wax ay troisième mandat mais loolu comme yeggaguñ ci et que il ne s'est pas prononcé là-dessus et que y a eu beaucoup de de bruit sur ce ñu bañ a yeggaguñ foofu et que beneen bi aussi euh, damay ñaan nag di ñaax tamit ñuy ànd ak président di liggéey ak moom ñu éviter certains détails parce que actuellement ça vole trop bas et que suñ leen toppee ci terrain boobu valeur yi ñuy petit ci Sénégal ak yi ñu jàppe woon Sénégal yëpp day deñ waaye mais xam nga boo nekkee ci dëkk euh, on donne pas espoir à la jeunesse euh, si tout le monde parle on dit que tout va mal et que les gens ne vont pas s'en sortir et que ils disent qu'il n'y a rien dans ce pays alors que Sénégal il y a beaucoup de potentiel parce que man damay dem lu bëri ci monde rural Il y a eu beaucoup de jeunes yi nga xam ne xamoon naa leen Dakar lañ nekkoon nekk ci activité yi nga xam ne dañu saturé euh, au final dañu ñibbi actuellement ils s'en sortent mieux que nous ñu ngi ci seeni surface yoo xam ne di fa liggéey doy waar euh, les discours changent tout donc arrêtons de de euh, de décourager la jeunesse te xam ne liggéey mi ngi ci dëkk bi que cheval de bataille yi tax dëkk bi mën a émerger ñoom la que mbay bi mi ngi fi sàmm mi ngi fi napp bi mi ngi fi parce que boo xoolee côté matière première au niveau Sénégal des na lu bëree bëri loo xam ni de euh, fa malgré les moyens que l'État met pour que ñu mën a émerger mais tey même si l'État met les moyens et que la jeunesse ne s'y engage pas duñ ci mën a génn ñu bañ a jàpp na rek ne Sénégal Dakar la yam y a beaucoup de potentiel yi nga xam ne ñu ci Sénégal nañu dellu ci yenn valeurs yi euh, delluwaat ci yenn culture yi pour que ñu mën a génnee dëkk bi fu ñu nekk parce que le pays c'est nous c'est pas à l'état wala parce que tout le monde doit s'engager pour que le pays mën a fou fu mu juste a nekk justice nous nit mënu ko defal boppam parce que ci république nek euh, on est dans un état de droit donc euh, am nañ li et c'est dangereux parce que maintenant même euh, da ngay gis ñu jàpp ni dóor ko dem ba foofu ñaan dañ ko jaawale wala def faut faire très attention euh, peut-être on peut intimider ñi nga xam ne dañuy def lu bon mais nañ leen teg ci loxo yoon ñii naa droit de se faire justice elle donc dañuy def attention bu baax ñu xam ne dëkk bi dafa am dëkku yoon la euh, anarchie baaxu fi parce que bu fi anarchie juddoo rek wala nekk fi rek euh, dafay xaw a loolu nag li koy indi mooy ñi nekk ci kaw ñu joxe bon exemple parce que boo nekkee ci dëkk jàpp ne dama nekk ci nguur lu ma neex laay def wala dama nekk ci opposition lu ma neex laay wax euh, dëkk boobu bu dem euh, dëkk ku nekk da ngay xam sa place nga nga liggéey li nga war a liggéey boo seetloo maintenant au Sénégal les discours ont changé on ne parle plus de s'opposer on parle de résistance alors que c'est dangereux j'ai l'impression que tout le monde est activiste alors qu'on doit s'opposer opposé wu nag bu ñu ko waxee mooy opposition de principe et d'idéologie et opposition de conviction ndax nit ku wax feeñ comme dañuy wax waaw boo waxee say idéologie Sénégal yi xam nañ ndax war nañ la wóolu wala waruñu la wóolu keneen ki boo waxee idéologie mo si Sénégal yi xam nañ ndax war nañ ko wóolu waruñ ko wóolu particularité bi ñu am mooy ñu ñu liggéeyal du ñu feeñ et bëgguñu feeñ et que bokkul ci seeni principe aussi mais anaa en a qui sont là qui travail très extraordinaire ñi nga xam ne tépp lu ñuy dégage wala di ko prôner si ñoom lañuy ñuy jóge ñoom ñooy liggéey liggéey bi et puis c'est un travail de d'un ensemble d'un groupe bi nga xam am forger euh, on a tous les mêmes réalités tous Quand euh, tu jot émergé, émerger à ku ci émerger wala ku nekk ci d'émergence on est tous partis de rien et qu'on on était exposé par rapport à beaucoup de choses yi nga xam ne mënoon tax ñu bàyyi suñu mais peut-être dafa am valeur yu fi nekk yoo xam dañ ñu ko inculquer tax na ñu réunir nekk force boo xam ne euh, nit ñi si boppam da leen di jaaxal parce que conviction fu mu nekk lu koy mën a terrasser du du yomb et puis on a des doyens et des sages yi nga xam ni xam nga lu mag bokkul moom euh, wóorul